moom mel ne bàyyi naa gis waa yoo xam ne ñëw na si marché bi ci di ut si mbaxana xam lu di waxaat ci mbaxana lu mu ba léegi moo xam lu mu bëgg sax man na mbaxana la laajte waaye ñu ngi laaj kenn dégg ko ñëw naa waa ji olof déggul soose déggul français déggul anglais déggul tëpp tëppal arab déggul aw sa yu ñëw làkk aw sa waa ji kenn xamul bi làkk ma ne ma dem naa déedéet ah, dem jot dem jot na xam nga kooku kenn xamul fu mu jógee loolu mooy Cheikh Wahid moo tax moom mbaaru jàpp benn kër tëjëm Ibrahima Diouf wax naa lay bàyyi moo dajale ñaari safaan yi moo Ibrahima ji daan ne maj mahul baxrayni ba xamal géejin mbambulaan xubbu zaman na sawdaan sidi barhama majmol baxaray ni barhamay feñi xobul ak xubbu zaman feeñ na sawdaan man Maodo Bakheng noonu bëggee ñu firé ko. lu la neex. dem Sénégal laa ko bëgg a bu la neexee ñu def ko bu tamit. <laughs> bu Sénégal la ko moom rek ndax Senghor moo wax ne may ko waa ba Boubacar fi ñu demee menace ba ci Sénégal la bokkoon ko lu kon lu ko may leen ko. am naa poche la def bëggoon une politique muy dex bi. moo tax woykat baaxul yàlla xëbb na leen ci alxuraan wa shaahidim mu gaawul am taanu fi kulwaat yéex yi mu ne wax na ko si ñoom sama woykat la moo tax yàqal lu dëkk lu bari mi nga gis na kon sëriñ bi xam nga dexu Sénégal laa ji ndax bàyyi Sénégal la juddoo daanu si géej gi si ndar ci dugg si océan Atlantique bi mille sept cent cinquante un la sept ak zéro boo ko boole ñaata lay jox mooy bàyyi. mooy bàyyi sa gàmm gi dafa baati ne ndax 13 juillet nga jàpp sa gàmm gi 2019 13 mooy bàyyi. moo tax dama ko ne sa programme bi gars yi dama dégg gars yi naan CAN Coupe d'Afrique des Nations ma man CAN mooy Cheikh Abdoulaye Niass. mooy mooy CAN moom. teel na kii. yaa ngi dégg xam nga fleuve Sénégal moom parce que commencé bu ma de lii ñamale ji la ma introduction ji xam nga fleuve Sénégal ñi bawoo ci Guinée fu naan les montagnes di Fouta Djallon yaa may dégg Thierno Thierno ñu ngi Thierno ba suñu bokk pël Fuutal moom ñu bàyyi ko ca Guinée. Thierno maanaam seen dëkk Guinée dafa am montagne yu naan les montagnes du Fouta Diono fële Sénégal sax fa la ballee ko fa la bàyyee ko am ñaari dex buñ naan le Baafi ak le Baakoy le Baafi ci ñu malinke mooy géej gu ñuul gi wala dex gu ñuul gi. le baaw koy mooy dex bu weex lu baaw koy dafa bàyyi ko ci Fuuta jalo daw 400 kilomètres àgg kay ci Mali le baax muy def gu ñuul gi baye ko Fuuta jalo ci Guinée daw 500 kilomètres àgg kay ci Mali ñom yaangi ngi TV la joie du cœur. yaakaar naa moo tax ñu tuddee ko la baaf la dañ fa ñu daje ñu tuddee la baaf la dañ ci Malek ma daje waaye ñaari géej gi. di bujj foofu la waaye bàyyi ne maj maxul baaxamay di baaxaamay géeju mbambulaan kut bu saman feñ na sore si di baaxaama baa fulaa bañ boobu nag mooy moom meññi fleuve Sénégal bi mu daw mille sept cent cinquante kilomètres daanu ci géej gi si ndaw ci océan Atlantique bi ñun lépp bàyyi lañuy jàngal aw xaar ma watik am sànna di boili naas yi ama yàqul alel alimun ay léeb la yoo xam ne koy dóor nit ñi boom xam kese ñoo ci xalaat wasalaam ñu ngi jégalu la ñu may kàddu gi bàyyi la قولوا آمين ñu ngi jégal ci kaddu gi nag kaddu gi bëggoon nañu bokk nii mais nag bëccëg dafa daw ñëpp di ne bëccëg gi daw na yàlla def fatu tey si Cheikh Abdoulaye Niass dañ koy ñaanal yàlla ñun moom sunu sunu wëllëre la sunu xarit la mu nekk nit koo xam ne ku baax la bu neex a àndal man moom. monsieur Abdallah Sow dafa dem ci hadis bi nga xam ne. waaw bu ma gisee Cheikh Abdallah Sow dafa dafay dem ci hadis bi nga xam yoon yoon dafa ne mu ne. bu'istu bi liin lii sayf hojatu liin ahtah min sayf mu ne man dañ ma yebal jox ma jaasi wala jox jox ma nooy mu ne mais man yonent gis naa nooy moo dàq dagg li nga xam ne mooy jaasi man tànn naa nooy. mu nekk jëmm joo xam ne ku lewet la ku nooy la ku bëgg ñëpp ku bëgg ñépp la amul xaaj ak seen ci dara kon lii moom la kan taal ba Cheikh Ibrahim kon si Abdallah ñu ngi lay sant la gërëm ñun suñu jëmm ji ma wax la ñu bari bëgg ñu wax seen géew bisaa ma waxuma lan la Pikine bu mu dëkk am ñoo am ñoo dañ na seen taalibe ba leen dem te xaddoo seexi yi te ba mu dalee ba mu dalee nekk yëngu ci fay di ba léegi 2007 laa ijaasa ba fu mu toll musuma wax boo xam ne dana dana dana merloo taale Baye Niass musuma ko génne sama gémmiñ mais mu nekk nit ki nga xam ne amul fiiraange ndax léegi dañ ne maa mbaa kañaan ba mu ci bëri kër sëriñ de sippi mu nekk nit ku ñàkk kiñaan nit ko wax ni ñëpp la yéene ñëpp jàmm ni ko lay ñaanal dina téeral dox te sax santoo ko ko ci jamono jii nii nga xam ne mu muqaddam buy dox gars yi ñu ngi fexee ñu téqatalee dañuy bëgg sanga am faux pas ba ñu commencé jël ko di ko exploité ah seet bi xam nga ko waaye saa yi benn taalibeem ah, la ah ñu dee waay dox fàtte na ni sax na nit ki boo day nuyut ayib nit sa ayib dana mos a feeñ mais moom bokkul si débat boobu mu nekk nit ku baax ku yaatu ku yéene ñëpp jàmm ñun moom sunu kilifa la mu nekk di ko wàccee boppam ndax am na koo xam ne sànq wax na sànq mu ne man sëriñam laa moo ko déedéet bul wax loolu am na koo xam ne bu gisee ne mu nga ko yokk ci yàlla au lieu que mu fexee ko ci ko def danaa nañ jéem a xool lu ñu fayee lii kii di wax loolu xel moom nag bokk si ñoonu ko sëriñ bi ñun lu ñu xam ci yëpp bu ko si yow si yow lépp bu ko noonu wax loolu dal ci at bi ñoo la ko yóbbee ndax wax bu bare doon cat dañuy ñaanal yàlla yàlla yàlla yëkkati yàlla dooleel la yàlla defal la tawféex yàlla ma lu kaw sa njoot ci jàmm ci xéewal jàppale jàppale waa xatara bi nga ñu ngi jàppale kon ñu ñaan la ñu mënte ñu ngi ñaanal di ñaan di ñaan sa képp ñu xam ñu ngi sàkku si ñaan nga ñaanal ñu sëriñ bi di nuyu ñi nga àndal ñi nga xam moom lañu àndal waa safal abraham mbokk taalibe ñoom it ndeysaan mobilisation bi ñu ngi leen di rafetlu boobu dama leen wax may ma kenn gànt mais góogóol nañu boobaa si yite ñëw ko ñëpp ñooy sant leen gërëm ñu ngi jégalu bu baax lu jub ci yàlla lu dëng suñu la ñàkk xamoon ak bi ci làmmiñ Joie du cœur.